moo jaalu dee fi defati moo jaalu dee fi waxati moo jaaku dee fi royati bu kilifay moya kafo ku war aw nitam di waara kay ful seeni gëm defu ko far boolew nitam di moya kay soowa kafo adduna yàqu na yaxeet ku yabu wut nekk fa tey jaamoo ka weet te sori kuy moya kafo adduna yàqu na te kët kilifa ko yàq kët du seenu nit ko yàqkat kilifa yee fii dox di fo ku ya buub sa buntu kër rekk te daw nelaw yu far nelaw a gën génn di lor aw nit kay loroo ka fo ku ya buub sa buntu kër rekk te daw nelaw yu far nelaw a gën génn di lor aw nita a kay loroo ka fo ay am na nag ndegam nelaw mu bon mi lee fii taxaraw xamal ni kon kenn dootu raw nelaw gënul lëf ndare fo yi nelaw gënul ku dul waajuy foyeeka mooy ndigal nelaw du tax ñu xëy lafal néewal ko tey moy ko fo kilifa day moy ko fo ba noppi tey tere ko fo bu mën la tee nag kenn fo na teye boppam bañ fo sawara bég na mbég mu rëy ngir mooy yu rëy yi dee fi mooy ngir xam na xel ni ñi mooy lay dunde ëllëg ak ñi fo foo toll gis góor ak di ka kay dox di been sunna si yonen bi akateen rekk di xal-xalee kafo aljana yàll na bég ci sëriñ bi yàll na bég ci nun yonen ba yàll na bég ci nun ak yàlla mi aaye ku fo sëriñ bi wax na bind na def na nu gis te digle na lii moo ko warkat wàcc na musula mooy musula fo waxam a gën waxi ku ne jëfam gën jëfi ku waaye ma gën waayi ku ne waayam ja dëgg nag du fo foo gis ku ne fi waayama muy foo ka nekk fa pama bul gëm ni koo ka waayama waayam ja dëgg dootu fo foo gis ku ne fi waayama muy foo ka moy xumaagama foo gis ku ne fi waayama weddil njegam gis nga mu fo wurus bu yàggee am xumaag xaalis bu yàggee am xumaag lépp lu yàgg am xumaag xumaaga fi ruusa ka fo ban ba wurus wu sell la waayam dërëm bu sotti la te ku amub rax la ab raxa bon day taxa fo xànjar lu dar dar ci wurus asal bu këb tëgg di gis xam ni dafay niru wurus nderu wurus wurus du fo xànjar lu dar dar ci wurus asal bu këb tëgg di gis xam ni dafay niru wurus ndedu wurus wurus du fo wurus lu sellul bokku ca xaalis lu weexul bokku ca ban ba lu baaxul bëkku ca nan bàyyi fo jullit du fo na ban ba bëgg ku na mel yal na nu yàlla may nu mel noona la ndaxte ku na mel doo fo to digle ku fo yal na sëriñ bi dimbuli seexam yi nag te dimbuli murit yi géppuk dimbuli ba xam ni kenn du mooy du fo lii rekk lay fexe ci nun nde soxlawul dara ci nun lu dul nu def murit yu gën yu kenn dul seeru ñu fo moo tax ma naa la yàlla na am li muy mébét ci nun nu am li nuy mébét ci moom itam kon lépp jag te kenn du fo